ca New York ga mu nekk ca jamono yi nga xam ne itam ci lañ amal jamono waxtaanu mbootaay xeet yi moom day am ji bokk na ci waxtaan woo xam ne dañ koo jagle lépp lu jëm ci wàllu dund gi ak lépp loo xam ne itam moo jëm ci lu ñuy jëfandikoo ci wàllu tool yi engrais bi ak leneen loo xam ne ni itam dafay soxal pepp mi nee na nag loolee war nañ ci taxaw taxawaay boo xam ne itam Afrique dina gën mën a am sigg gum ci siggi ba tey itam ci wàllu xabaar am na loo xam ne ni ñu ngi koy woyal ca Paris doon pays réew France mu nekk ndaje moo xam ne nii suñuy kilifa yi ngànk aéroport yi fii ñoo fa teew ànd fa ak ñi nga xam ne itam ñoo fa yor ay këru liggéeyukaay ngir gën a wane itam la ñuy wane am ak la nga xam ne itam noonu la ñu a mën a jëflante ak ñoom mandat douane day doon na dëkk boo xam ne ni bu siiw la lool ma nag ca Kolda foofee nag lañu suñu naataango Tidiane si si demal ngir gën ñoo xamale ak moom mu doon bërëb boo xam ne célébé yoon la même ña nekk itam ci yenn diwaan yeeg yenn gox yeeg yenn dëkk yi nga xam ne itam dañoo sësalante ak dañu fay ñëw loole di mandargaal rek taxawaay bu mu am ci wàllu koom ni ñu ko waxee ci njëlbeenu xabaar yi njiitu réew mi di président Macky Sall am na waxtaan woo xam ne nii amal na ko fafee ca New York loole nag dafa soxal lépp lu jëm ci wàllu dund gi wàllu itam engrais bi ak wàllu pepp mi nga xam ne nii moom la ñuy jëfandikoo ndax nee na li nga xam ne nii moo di jafe-jafe yi ñu am ci wàllu dund gi day ngir gën cee mën a bind saafara fokk itam ñuy gën a mën a yéwanal li nga xam ne nii moo doon pepp moom ba ñi ca war a mën a jot jot ci waaye engrais bi nga xam ne itam dafa doon amu solo ci wàllu tool yi ndax tos la ci loolu itam fokk ñu am taxawaay boo xam ne dañ ciy taxaw ña ko yelloo moom président Macky Sall kàddoom yooyu Omar ñi nga ma ànd ak am na lu mu ca taataan ñu teewlu ba ko tënkee tolluwaayu àdduna ci jafe-jafe yi am ci wàllu crise alimentaire nekk loo xamante ni lu soxal réew yëpp la ba tax président de la république Macky sàll bi mu jëlee kàddu ci ndaje bu am solo bi wax na ni jamono yi ñëpp ñoo ci war a jàpp mbir mi nag am na yenn poñ yu am solo yoo xamante ni njiitu réew mi gis na ni faw ñëpp jóg ci lu demee ni engrais bi nga xamante ni jamono ji am na ay jafe-jafe muy laaj nag ñu ubbi marché bi su ko defee yenn dëkk yu demee ni réewu Afrique yi mën ci sukkandiku ngir rek doxal seen mbay ci wàllu mbay moomu sax président Macky Sall wax na ni am na réew yu ciy def ay jéego yu am solo lu demee ni Sénégal ndax campagne yi ñu weesu ak bi ñu nekk wane na ko ndax ay koppar yu am solo lañ ci def su ko defee mbay mi gën a ñoŋ ndaje bi amoon solo lool bu weesoo président Macky Sall ay kilifa yu demee ni Charles Michel waaye tamit Anthony Blinken jël nañ ci kàddu wax ne ni ko président Macky Sall waxee mbir mi dafa laaj jokkalante waaye tamit liggéey ànd su ko defee jafe-jafe yi àdduna bi di am ci jamono yi eh, ci wàllu dund bi mu nekk loo xamante ni dinañ ci mën a indi saafara. jërëjëf Omar am na sax yeneen wax jukki yoo xam ne nii soxal na waxtaan yi njiitu réew mi amal foofee incha allah dinañu ci gën a dellu si laata loolu itam dañuy fàttali ne foofee ca New York ci ndaje mi nga xam ne nii moom la fa mbootaay xel gi di amal ak itam mboolem réew yi ci bokk at mu nekk waxtaan nañ ci lu jëm ci wàllu diggante Russie ak Ukraine waxtaan ci lu jëm itam ci li nga xam ne nii moom moo doon coppite yi am ci wàllu jaww ji ak yenn fitna yi nga xam ne dañ koy faral di nimmiku waaye nag li nga xam ne moo doon coppite ñu war a mën a am ci conseil de sécurité des nations unies ba maanaa kuréel goo xam ne itam dafa nekk ci xoolu mbootaayu xeet gi te ñu war ci indi ay coppite ñu teelu Seydina Aline Fall mu ñu tënkal loole tey jilee ca assemblée générale bu ONU jafe-jafe yi nga xamante ne nii àdduna bi mu ngi koy jànkonteel waxtaane nañ ko fa ñu daal di wax lépp loo xamante ne nii nag nekk na gàllankoor ngir yenn ci dëkk yi nga xamante ne nii ñu ngi ci àdduna bi wax ci guerre bu yi nga xamante ne nii mu ngi fële ca Ukraine waxi tamit ci changement climatique bi waxi tamit ci li nga xamante ne nii moo di réforme conseil sécurité bu ONU. li jëm ci wàllum changement climatique bi continent africain bi daal di nag sàkku ci ñi nga xamante ne nii ñoo di dëkk yu gën a am doole. ñu daal di nag dëggal li nga xamante ne nii ñoom waxoon nañ ko ne dinañu jàppale Afrique ci wàllum koppar ngir nag ñu fexe ba nga xamante ne nii. dinañu dékku lépp lu jëm ci wàllum changement climatique bi nga xamante ne sonnal na lool dëkk yu mel ni dëkk yu nekk fii ci Afrique. leneen lu ñu fa waxtaanee jëm ci wàllum conseil sécurité bu ONU ndaxte Afrique rawatina. ñi nga xamante ne ni ñoo jiite continent bi euh, di président Macky Sall nekk président Union africaine yàgg nañu sàkku ci nag ñu amal coppite ci conseil sécurité bu ONU tey ji nag président américain bi di Joe Biden nee na nag moom ubbeeku na ngir nag ñu amal coppite yooyu ci conseil sécurité bi fexe ba nga xamante ne ni limub membre permanent ak non permanent yi ñu yokk ko yokk ko jëmale ko ci dëkk yi nekk ci Afrique Amérique latine ak Caraïbes

dajam wane la li doon ay manoore ak la nga xam ne itam moo doon gànjar yi nekk ci yenn réew yi ndax ci wàllu tourisme ak ci wàllu aéroport ay kilifa yi ñoo fa daje am itam délégation xam dafa bàyyeekoo fi suñu réew dem foofee ngir gën leen a xamal itam lañu am ci wàllu tourisme ak wàllu aéroport foofee nag ki la xam ne dañ ko faa yebal ngir mu taatan ñu xabaar yu ñuy mel Fatoumata Savana la ñu teewlu ko ci. lu toll ci quatre-vingts dëkk te it am trente-cinq mille professionnels yoo xam ne rek ci wàllu tourisme la ñuy yëngu waaye itam ay marque lu toll ci sept mille ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci wàllu voyage tourisme ak it ñi nga xam ne ñoo leen di indi ñi nga xam ne ci avion la ñuy nekk ñooñu ñëpp nag di yëngu rek ci wàllu tourisme tey jii la ñu ñëw fii ci France ci benn salon bu mag

muy salon tourisme boo xam ne nag li muy laaj rek mooy ku nekk wane xarañteem te mën a jaay li nga xam ne rek mooy sa dëkk nit ñi mën faa ñëw. jot nañu daje ak yenn ci compagnie aérienne yooyu bëgg a ñëw Sénégal wax nañ leen itam euh, nan la réglementation bi tëddee. salon bi nag 1979 ba léegi lañ ko taxawal boobaak léegi at bu jot mu gën a màgg di boole nag ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo bokk xalaat ci wàllu tourisme loolu nag tax ñu teg ay li nga xam ne rek dina mën a yokk mbir mi fu ni nak nii Sénégal ñi nga xamantene ne ko fi taxawal japp nañ ne rek faaw ñu yéssal la nga xamni moy mooy seen doxalin suñu bëggé nit yi gëna ñëw Sénégal. le potentiel existe et il tourisme bi Sénégal ñu ngi gis at bu nekk mu ngi gëna a yokk euh, li koy firndeel mooy réservation yu bari ci ville bu melni Saint-Louis ak Dakar. autour de Saint-Louis et de Dakar. jamono jii ñuy wax nak ñi nga xamantene ne ñoo représenté Sénégal ñi ngi fi takku lool bëgg nag ku ci nekk wane boppam ba nga xam ne rek destination Sénégal nit ñi dinañ ko gën a soxla. dañoo commencé liggéey boo xam ne dañoo def délégation fii jóge Dakar dem Martinique rencontré leen discuter ak ñoom pour xool naka la ñuy développer tourisme bi entre Martinique et Sénégal édition 2022 bi ci li nga xamné moy salon top Topresa nak japp nañ ne rek dina indi li nga xamné moy mooy yokkute ci digënté ñi fi nekk dëkk yi fi nekk bari lool waye ku ci ne nag wane sa xarañ ci sa stand ni mu taaro te it ay waxtaan ak yitt ay atelier ki conférence def nañ ko fi ngir nak mëna gëna gën tourisme. Sénégal dafa am ay atout yo xamné légui léegi kenn mënatu ko naatable nga xamné ci plan infrastructure événementiel mais nga jël aussi l'aéroport international Blaise Diagne

mu mel ni Afrique dañ ko rek ràññee ci édition 2022 bi ci e Top Topresa ndax nak Maroc la ñu tànn rek mu don invité d'honneur bi. jërëjëf Fatoumata gannaaw bañu sampé sampee nguur gu yees bi ci suñum réew kilifa yi nga xamné itam ñom lañ dénkoon ay cër njottaka kalen dom tank ña wotu wuutu joxante nañu ay lenge lu melni ni ji dénk lepp lu jëm ci walu yenn koom yi yaxanto mu doon euh, walu itam microfinance te euh, Zahra Iyane Thiam doon ko jiite kaka fa wuutu di Victorine Ndeye jox na ko ay lenge mu toog ci siis ba ba amal loolee nag Fanta Bacci lañ fa yebaloon. ay ñaan lañu tàmbali bile cérémonie ngeen xam ne dañoo bëggoon rek dalal jàmm kii di jëwriñ bu bees bi ñu dénk microfinance ak économie sociale et solidaire mu di Victorine Ndeye. mu ngi dugg ci gouvernement bi boobaak léegi am na ñaar fukki weer ak ñaar mu bàyyeekoo ca jëwriñ ji ñu dénk wàllu urbanisme. pour microfinance bi mu nek sas bu rëy euh, sas ci confiance ci kóolute waaye ça sas ci secteur ndax ku xam secteur microfinance ak économie solidaire économie sociale et solidaire xam ni dafa nek ben pilier bu fondamental pour ñu mëna adresser problématique wu moo xam emploi mo xam jàppale jënd ak jaay moo xam aussi structuré euh, accompagnement bi ñu war pour des couches pour une cible bi nga xamantene dafa soxal lol lol lol son excellence le président de la république pour ñu xoolee euh, orientation yi mu joxé yëpp. mom mi di Victorine ndey fas top ci tànku ki nga xam mom la fi wuutu mu di Zahra Iyane Thiam. bu ma xolé ca na mu doon conseil des ministres taxaw thème di défendre secteur njort naa ni bu ma jëlee ay tànkam gëm naa ni baax baax rek lañ ciy gis. yaakaar gi ñu am sas gi ñu sas te fast track biñ ci war a boole eh, yaakaar naa ni tiit xaju fi ragal xaju fi. ndax ñun ñëpp bu ñu bokkee nekk benn say di xàccandoo di dóorandoo gëm naa ni résultat yi ñu bëgg dinañ ko am bu soobee yàlla. juróom-ñaari fan ci weeru avril ci atum 2019 lañ ko dénk ministère bi di microfinance ak économie sociale et solidaire Zahra Iyane di dem ak xel mu dal. bu ñu ne secteur bi amna ay avancé xamal ne agent yi fi nek personnel bi fi nek ñoo ko liggéey nañ ñoo xamné au delà de leur sacerdoce ak de la poste. bu yàgg ak Victorine Ndeye ngir jébbal ko lépp li nga xamné mom la wara xam ci jëwriñ ji nga xamné mom la fas yéene doxal. jërëjëf Fanta kon Victorine mo wutu fofé Zahra euh, ci walu xabar ba ñi nga xam ne ni ñooy yëngatu ci wàllu euh, télé bi ñu dippee itam Malikia TV dañoo am yéene lëngoo ak RTS. ñuy wax audience ci suñu kàllaama euh, loolu service public bu nekk bëgg na ko. lëkkaloo bii nag dina gën a dooleel Malikia TV ci wàllum programme ndaxte télé bi dina jàllale journal wolof ak français bu RTS ak lenn ci ay émission thématique. comme que chaîne Malikia boobu ba léegi mi ngi daw.

entreprise locale nous ñu ñu production gëna mëna compétitive mëna ak ngi suivre si li plan de développement bi nga engagé wu won ñetti région Casamance occasion valoriser ressources locales yi. nañ euh, programme bi euh, dinañ ci am ay bénéficiaires yu bëri jugee Ziguinchor te ku ne xam na ni Ziguinchor dafa am ay potentialité yu riche c'est la région la plus riche au Sénégal n'est-ce pas en termes de ressources naturelles mais également parfois en termes aussi relativement humaines c'est pourquoi euh, on ose espérer yakar nañ dal ni. Sénégal ñu ci bari dinañ fay ñew ndax marché ba fa nek ak koom mañ fay ut ñu teewlu ci Tidiane mandat Douane, village la bu nek ci bi région bu Kolda. dëkk bi ngeen di gis siiw na lool tey ji ci sous région bi. manda douane temps boobu fii campement la tudd douane ren nekkoon fii mu tudd campement su papa mu ne fii manda la manda bi nekk ñaari fale nekk manda fii nekk manda mu ne manda bu douane moo tax ñu ne ko manda douane ñu douane ñu nekkoon fii tey donc da nga gis euh, euh, mun naa la ne euh, quatre pays dañ fi daje. la Guinée-Conakry, et la Guinée-Bissau, la Gambie et le ah, donc moom ñoo ñeenti réew yi di fi ak Sénégal mu nekk juróom réew. dëkk bii di mandat douane am na tamit benn marché bi nga xamante ni am na doole lool commerçant yi fu ne la ñuy bàyyeekoo ci biir sous région bi ngir ñëw fi tax na tey jii am na ñu commencé di méngale marché bu mandat douane jërëjëf Tidiane yow mu ñu doon gën a xamal ak dëkk boobu di mandat wante mu nekk ca Kolda euh, gannaaw loolu nag xam nañ ne euh, niñ ko doon jinjee ci njëlbeenu xabaar yi ñu ngi wëyal di leen indil ay leeral ci ñi nga xam ne itam ñoo wuutu seen nattango ci njëwriñ ñu leen dénkoon gannaaw itam ba ñu amee yeneen cër yu ñu leen jox waaye itam am na ñoo xam ne dañ leen di gën a xamale ak askan wi ku ci mel ni ki nga xam ne moo doon docteur Cheikh Kanté mu di bi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu Sénégal émergent Ibrahima Diédhiou gën nañoo xamale ak moom jëwriñ ju ñu les lépp lu jëm si luy doxal plan Sénégal émergent moo fa nekkoon directeur général adjoint bu Mitsubishi mu war a toppatoo lépp lu jëm si luy doxal entreprise boobule ca Afrique de l'Ouest jëmale ko si mbirum wér-gu-yaram jàng jaww gi ak napp gi docteur Cheikh Kanté nekk na professeur si université yu bëre si àdduna si fii si Sénégal day jàngale ca CESAC bokk na si membre conseil d'administration bu IFAN ca université Cheikh Anta Diop ak laboratoire bi nga xamante ne day saytu lépp lu jëm si mbirum fondation Concorde bu France war a toppatoo li nga xamante ne moo di université bu jublu si ay métier ca Saint-Louis docteur Cheikh Kanté am na pas-pas lool ci lépp li nga xamante ne dafa jëm si plan Sénégal émergent mu doon mbir boo xam ne xel ak xol la ci demee te tey jile tàbbat nañ ko si ministère bi le ngir mu seytu doxalinu ñaar fukk ak juróom-ñaari projet yi nga xamante ne ñoo nekk si plan Sénégal émergent te président Macky Sall bind ko. waaye nag muy tegtal woo xamante ni daa jàpp ni bu ci sukkandikoo li mu bëgg ci njaareem yëpp dina ko am mooy soppi xar kanamu njaareem ak ay investissement maanaam fexe ba am xëy am fi liggéey am fi ndaw ñi mën a liggéey mën a moom seen bopp loolu nag ngir agsi ci am na ay partenariat yoo xamante ni am na ko lu ci mel ni maire yoo xamante ni ci Jurbel la ñu bokk ñu leen Allemagne ci wàllu coopération décentralisée yokk seen man-man ak lëkkaloo ak beneen réew li mu créé gum actuellement fii ci emploi depuis presque mën naa ne ci quatre dernières années yi jege na wala mu les cinquante personnes donc loolu nekk plus boo xam ne ne bii mi ngi yëkkati pouvoir d'achat dëkk bi mingi y a aussi li nga xamante ne bi moom mooy économie wu Diourbel yemul rek ci investissement parce que il a des partenaires en Europe à l'étranger il a des partenaires en Asie donc vois la coopération aussi vois le partenariat public privé On a mission bo xam en Allemagne yobu nañ les cinq maires limitrophes utal leen ay partenaires ba ñu gisante ak euh, les PME le président des PME PME PME PME Allemagne amna ay projets yo xamné teunk nañ ko fa pour war ko def ci fi ci Djourbel avec les maires. maire yoyu nak yag nañoo joytu li nga xamné modi walu ñakum xey ak ñak gi nekkon ci njaareem waye nak Sidi job fas dugal ci lepp luy aju ci liy suqali njaareem. Euh, Baol Invest surtout côté rizerie dañuy wax né pratiquement amna apport bu am solo bo xamné def nako ci côté réduire euh, ñak emploi ci côté jeunes ndax buñu ñu xoolee <clears throat> actuellement am na équipe boo xam ne ñoom ñoo fi nekk di gérer lépp lu jëm ci côté production en même temps côté administration ay jeunes ñoom ñoo ko gérer. jurbel dañu gis ne dafa nekk ni ko nit ñi di tuddee maanaam cadre liggéey ak yooyu dafay xaw a sooxe moo tax boo demee Dakar ñu ëpp ñu ngi fay gis ay bawol bawol lañ leex mooy entre axe ju Bambey Touba te loolu. liggéey li mu indi fii permettre na ñu mën a te xale yi nga xam ne dañu am tendance di dem daka di liggéey ñu mën a toog fii à Diourbel di fi liggéey ci feneen ak feneen foo xam ne mu ngi fay dafay activité yoo xam ne pour mën a tënk xale yi. ñu bëri ndaw ñi di daan doole ci fii nga xamante ni dañ ko fay taxawal lenn li ñu fiy defaree dëwlin leneen li di fi defar ceeb bi nga xamante ni bu ñu ko jëlee fuuta dañ koy indi fii def ko ci ay saak leneen li muy fi ñuy defaree glace. ndax ku ne xam ne njaareem dafa tàng ak yeneeni bunt yoo xamante ni ñi ay gone mën nañ fee daan seen doole te loolu lépp li ko waral mooy kenn ci doomi njaareem yi moo dugal ay loxoom ci lépp lu aju ci luy soxal njaareem waaw muy ceeb beeg diw geeg euh, mbuum meeg comme ni ma la wax rek bu ñu xalaat dañu xalaat li nga xam ne tamit wax dëgg yàlla dina dinañu jàppale te dina dina dina jëmale kanam tam économie bi nga xam ne nekkoon na fi ba noppi loolu nag suñu borom dimbal nañu yeneen tam ñu jël nag ay xale yu bëree bare bari bari yoo xam ne ah, dañuy soxla ay stage pour jeexal seen njàng am ñoo xam dañuy soxla ay stage tam pour ñu war leen jël ñuy liggéey am ñoo xam dañuy soxla tam ay stage pour renforcer seen xam-xam loolu nag ñun yàlla dogal ñu amoon ko fi ndax bu fi machine yi nekkee xam-xam bi nekk fi expérience tam nekk fi ndax loo xam ne yaa ngi koy def depuis 2006 moo war a am ay at yu baree bari donc expérience boobu ñi fi dem tam ñi fi ñëw tam dañ koy soxla. yéene yi nga xamante ni bii nag Sidi Diop am na ko ci Suqali Njaareem mooy fexe ba mu ubbeeku ci àdduna bi ba lépp luñ fi defar ñu mën ko yóbbu yeneen réew. boo xam ne vision bi mooy rek nañu ànd ñun ñi juddoo fii yaroo fii ànd liggéey gëm li ñu am mais tàmbali képp ku ñuy dimbale fekk ñu ci pour ñu créer une structure économique. boo xam ni ëllëg ak si biir dinañ ko mën a wone ci Sénégal wone ko Afrique wone ko ci àdduna si ñun ñoo war a mel comme dubaay nay dëkk boo xam dafa tàng ñëpp ne dara nekku fa ñu war en l'espace de quelques années at yu néew ñu yëkkati ko ba ñëpp di ko gis ci àdduna loolu mooy sama yéene ci Jurbel te wóolu naa waa Jurbel yóonu naa gonay bawol bawol yi te jàpp naa ne buñ ko àndee mën nañoo egg foofu Jurbel fas yéene taxaw taxawaayam bokk ci koom-koomi àdduna bi saa yoo xamante ni bii lépp luñ fiy liggéey jëm na ca kanam ba ñu gis si yokkute ndax loolu mooy jëmale am réew ca kanam. jërëjëf sëñ Abe bu ñu foofu ca njaareem nag dañuy dem ci dëkk bu ñuy wax euh, Lumbol Samba Abdul moom nag dana dëkk boo xam ne nii ma nga ca commune bu Ndalaay nekk itam ci fi nga xam ne nii moo doon département bu Ranérou foofee nag dañu faa demal bañ fa demee am na taxawaay boo xam ne nii moom la ñu fa saafara saw seetlul dafa gis ne dëkk boobee day dafa tumuranke lool lu jëm ci wàllu euh, wér-gu-yaram tumuranke loolu itam lu jëm ci wàllu njàng ak njàngale kon nag loolu doon na loo xam ne nii ba ko saafara saw demee seeti ko doon na ay jooytu doon na itam ay tawat incha allah kon loolu doon na loo xam ne dinañ ci indi ay leeral kon mel na ni loolu jàppandiwul kon li ñu def mooy dem seeti Mame Moussa Niang mi nga xam ne nii Euh, indi na ay euh, am na jukki boo xam ne def na ko ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu euh, taxawaay bi nga xam ne moom la ONAS am digganteem ak ñi yëngatu ci wàllu nawetaan ndax kat dañoo jàpp ne doon na ay kuréel yoo xam ne ni bu ñu lëngoo la waa ONAS mu doon itam di tonni mbalit doon di xayal ndox mi mu doon itam di am ak jàppandal goo xam ne da koy indi wàllu woowu yëngatu ci wàllu nawetaan itam doon ay ndaw yu am Pastef war nañ cee mën a lëngoo war cee mën a jàppalante ñu teewlu ci Mame Moussa Niang

comme le président l'a dit tout à l'heure, nous faisons tout pour vraiment accompagner ONCAV. ONCAV joue son rôle régalien, donc vis-à-vis tout simplement donc, de la jeunesse, mais nous appelons aussi ci li nga nous ne mission régalienne donc bu ONAS. organisme bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu nawetaan yi di ONCAV fas yéene ak ay ndaw ngir nak mën jappalé ONAS ci liggéeyum mbirum ndox yoyulé la. ñoo ngi à travers ministère de l'assainissement donc ONAS donc pour ñu mettre en place aussi benn système d'assainissement assainissement boo xam gérer li nga xam ne mooy ndoxu donc kooku ñu ngi ciy réfléchir bu baax a baax donc ci ci ci kanam tuuti peut-être dañ leen jox euh, donc li nga xam ni euh, moom la projet boobu ëmb pour que quand même ñaari ñaari assainissement yi mën a nekk. ci Kër Massar ci banlieue bu Dakar fépp daanaka am na ay équipe yoo xam ne ci terrain bi ngir jàppale askan wi rawatina it ci jamono ji nga xamee ni nawet bi des na. parce que en tout cas ONAS bi nga au nom du ministre de l'eau et de l'assainissement sous les directives du président de la République donc euh, li mission mooy mission service public donc cela veut dire que nous war gérer la population bi la population bi ci li nga en fait c'est ci que nous li nga xam ni mooy euh, sunu sas mooy ñu mettre en place le système d'assainissement, l'assainissement, assainissement sec et setal li nga déjà nous xool naka lañ ko li nga xam ne ñëwagul aussi ñu xool naka lañ koy préparer ak ñoom population bi. ONAS signé na ay convention ca jamono yee ak service national hygiène CSE UCG yooyu kuréel am na yeneen yum ci teg ngir rek fexe gën a teew ci terrain bi ci fépp ci biir réewu Sénégal. jërëjëf Mame Moussa Niang ci wàllu diine ku nekk xam na ne tey ji dañuy fàttaliku li ñuy wax julli géej gi mu doon julli gu Cheikhul Khadim julli woon ca géej ga. fay nag ca jàmmalaay ñu koy fiy baaxoo di amal di ko fa dundal di ko fa màggal ci teewaayu mbooloo mu takku ñaar fukki at ak juróom-ñett ngi nii ren jii nag noonee lañ ko defewaat nguur gi itam yebal fa ndaw mu di jëwriñ ji nga xam ne itam moo doon jëwriñ ji yees ñu lu jëm ci wàllu njënd ak njaay di Abdou Karim Fofana ñu teew li ci Dame Sylla plage ub jàmmalaay fees dell ak i nit fii fu waay sànn mbatto mu takk at mu jot nag bërëb bile fii la ñuy màggale julli gi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul julli woon na ko ci géej gi mu doonoon ci atum 1895 ca ba muy dem ca exil fële ca Gabon ci ñaar fukk ak juróom-ñetteelu édition bile nag taalibey murid yi jóge nañu fu nekk ngir ñëw julli si file ci njiitalu Serigne Fallou Abdou Khadr Mbacké kuréelu fàttaliku julli géej gi ñoom day at mu nekk ñooy amal xew-xew bile di ko amale fii ci jàmmalaay

li nag xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moo leen ci jox ndigal. du lu kenn na table euh, wax na ko sa gën a julli jëwam tax suuf tubaab bi xam na ne sëñ tubaab amul morom ñun nag ñoo ko war a approprier wu mais suñ ko approprier wu du rek pour def spectacle du rek pour def euh, mel ni koo xamante ne dafay dafay exulter de bonheur rek comme ça déedéet l'islam dafa ne soo bëggee santal yàlla. booy sant yàlla yi ni nga koy santee da nga koy sant ci alquran sant ko ci xasaayit yi sante ko ci jëf ju baax lii moom mooy bis bi ginnaaw julli tàkkusaan gi ñu koy màggale julli kër Serigne Touba ci géej gi amal nañu nag ab cérémonie officielle nguur gi nag ki nga xam ni moo jiite délégation bi moo di ministre du commerce bu yees bile di Abdou Karim Fofana. Sëñ Touba Khadim sol ci ñaari rakam yi dafa féete woon ak boromam doyloo ko. jël deram bu tedd bu sell bi sànni ko ci géej gi wéet a ak boromam ba xam ne yàlla moo yore géej moo yore suuf moo yore asamaan et que donc moom comme gëm na ko jaral na ko mu dugg wàcc dugg taxaw ci ci ci deram boobu euh, jaamu yàlla bés boobu bu ñëw bu dellusee ala kulli alin képp kuy doomu aadama gëm yàlla war nga ko def sa bés muy bés fàttaliku ne yàlla rek moo am leneen amul lu dul yàlla suñu borom tabaaraka wa taala bu weesoo julli gi xeexoo bi itam danañu fi jàng alxuraan ak i xasaayit ay conférence itam danañu ko fi amal ngir di dikkaat ci dund ak nekkinu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom mi nga xam ne moo sos yoonu murid jërëjëf daam jërëjëf itam mbokk ci teewlu bi loolu daal moo doon di firusoon ci wàllu xabaar dëppoo itam ak li nga xam ne nii moom la ñu cërloon ci wàllu waxtu li ñu def moo di di leen ñaanal gaal mu ci dee ci géej gi